waay waay waaye waay mari déet waay mari mari na nooy la ñu wax de. <laughs> dëgg la na nooy gi tey da ci bokkaat ah. ah kan la ji tudd waaw non si tey tey na ah, nooy. waaw na nooy de. ji tey la ba tey waaye nag ñi nga xam ne alaaji dañ leen a jàpp. Mm-hmm. Euh, ci wàllum manifestation. Ah. ñu mm-hmm. sukkandikoo ci kàddu président bi. Mm-hmm. nañ leen baal ñu ñibbi xamal lu tax. président dafa ne. comprendre naa seenub mer. déggoo ma de. ñeneen ñi dañu ne. ay terroriste kii bandee leen rax kon ñooñu bu ñu leen tëjee alaaji nañ leen atte ndax terroriste moom boo ko jàppee da nga ko war a atte mm-hmm. mm-hmm. dëgg loolu dëgg ak mm-hmm. bandi ak bandi njiitu réew mm. te xam naa ne moom kuy am information information ba mu gën a ba ba mu am ca la ma jàpp xam naa ne mooy ba gën a toog gën a dëju le premier informé des informés c'est lui qui informe tamit en même temps les sénégalais dëgg loolu dëgg te waxama sax sax ah. léegi nag moom nee na yéen ndaw yi. xam naa seenu mitit li ngeen di dund euh, temps yi daal dafa muritewul mal vivre. waaw moo bum utiliser. dégg nga amul xéwal waaw ba tax na koppar gi ñuy liggéeyee ñun gouvernement bi di budget bi. Hmm. danañ ci teqas lëf source année trois cent milliards la ma koy wax. ngir dundinu gone yi. Hmm. macha allah. dégg nga loolu alaaj waaw. mais comme moom nee na. Hmm. ñii lu leen métti. moo taxoon ñu génne te comprendre na li leen miti mm-hmm. waa kon nag nañ leen bàyyi ñu ñibbi. Mm-hmm. comme que ñu dañoo amoon lu leen naqari ba tax. Mm-hmm. ñu taxaw ci diggu dëkk bi. manifester manifester génnee ay morceaux xonq mbir ma dégénéré. ndax xuloo na xuloo la. xuloo alaaji. xuloo la di. à tout moment mbéj mën na jug wala wala wala kurpeñ. waaw waaw. dëgg loolu dëgg. voilà loolu nag kon nag kon comme que moom nee na nooy. jënd glace indi teg. taal ventilateur am alaaji mhm. ubbi frigo ba mhm. salaire bay génn mu laal climam mhm. kon nag na nooy nañ saral xol yi mu mujj voilà glacé waaw nañ ko def daal bàyyi démba ndiir na nooy nañ leen génnee xale yi ñibbi ndax président nee na li nekkoon seen dënn lañ doon wane ca mbedd ma te nag mënuñu ko wane ci biir kër yi dégg nga waaw lëf xew na ñu profité ca wane la leen naqari ñu teg leen loxo nañ leen bàyyi naka démb romb naa tribunalu Géejawaay ba mm-hmm. ñu woo tamit téléphone lafa taxaw démb ci ay doomu aadama mm-hmm. ci ñëpp dañ leen a ramas ñu ngi jotaat tam ay information ñu ne mm-hmm. police baa ngay xool photo yi ak vidéo yi di jëli booy benn benn seen kër déet boobu it boobu boobu bokkut bi bi bi bi kilifa gi woote de waaw boobu nag bokkul ak li kilifa gi woote kilifa gi alaaji nee na na nooy nañ leen ko nooy na nooy dal na nooy dëgg dëgg na nooy su mu nee ndàmp ñi ñu yàqal alaaji xëy mu ndàmp leen ñi nga xam ne dañ cee loru la it moom digg na ne dana leen jàppale ci wàllum paj gi ñu jàppale leen. ok loolooy nooyul mbir mi de. dëgg loolu dëgg. gi di xooli moom. ah baax na. nooyul de. baax na nag. nooyul ñeen fi jàppoon ba mbir mi ne téppérti ko. day leen continuer noonu di ramas gone di leen di leen jàpp nag ba mbir mi nii maar day taal téppérti ko. Oh, te kilifa diine yaa ngi ciy dox kilifa aada yi ci dox te ba léegi nii mbir ma gaañaa ca kon nag. nooyul de mu set. nooyul de waaw ay ñoom ay ñoom Abbas Fall ak ay biram Souleye ay kii Marie Sagna ay Assane Diouf ak. ah ngi ci biir ay ñoom ci biir. dégg nga ah. léegi nag ñii wax ne waa ji gëmuñu ko. moom tamit nag moo war a góor góorgóorlu def lu tax nit ñi gëm ko nag. waaw daf ñuy def njamala kaay wuyu sa yaay sama yaay du ma wooyee paaka. Mm. nii la njamala di def loxo yi ci ginnaaw. ah waaw comme Ousmane Sonko ni mu defoon loxo mi alaaj. waaw njamala noonu la lay def ndeke paaka la yor ci ginnaaw. waaw moom nag njiitu réew tam bu mu def njamala. yoot gars yi ba jékkuwaat leen ulbati yooyu yëpp jar jaru ko moom daal na nooy alaaj na nooy na nooy nepp nga glacé baax na non foofu lañ toll nag fi nekk nii dafay suusoon de nepp sax suusoon na fi nag ñun nag suñu wootee alaaj yi na nooy ñun dañuy woote noonooy bu suusee it ñun ci côté peuple bi lañ na de waaw na nooy rek la ñuy wax waaw wax ah, baax na léegi nag comme que noonu la fa tabaarakallaahu waaw mm. kay comme ni ko waaraatekat yi di waxee <laughs> yow yow Fatou Abdou Ndiaye def ma man man doo ma sorxe sorxe mu naan defal lu gaaw. doo ma sorxe sorxe yeewu na heure bi kumpa moom bu doon reyee. <laughs> bàyyi ko billaay Fatou Abdou du mucc. léegi nag alaaji. Mhm. neexoo ma dara. Euh. waaw waaw nu mu tudd na wax sunu xarit rek. waaw ku ko may suñu xarit bi non non. suñu soxna si démb. suñu soxna si ñëwoon démb la ko hmm? jàppalee ci ordonnance bi. am na ko jàppalee ci ordonnance bi. am na keneen koo xam ne tam woote waat na te bëgg nañ dimbal. Hmm. xam naa dina fi ñëw ci kanam moom it. Hmm. doomam la ñu la ñu dóor bal. Euh, ci ci moom it ci bopp. nañ ko jox rendez-vous demee rek incha allah moom ma ci bopp. waaw. lii xaw ma lii lan la. Euh, alaaji mhm. fait divers la de viol yi nañoo yàgg na mhm. ni mu ko waxee woon mhm. jour ba ñu wax ci affaire u PV waaw dossier wu Ousmane Sonko ak Adji kañ dénk enquête ba moom nag moo nekk ci inu tribune tey gis naa ko moom it mooy tës bi tey di capitaine Omar Touré capitaine Omar Touré nag alaaji wax na tekki na ndomba tànkam officieusement officieusement waaw nee na bana waaye baggi nag dafa am lu koy matérialiser mooy ab leetar te njortes nañ ne ajuma dana ko leeral ba mu leer moo tax mu ne nag balaa ñu koy teg loxo wala balaa ñu koy rey mu wax ak moom moo utiliser lii de man utiliser wu ma ko. ay kàddoom la ay kàddoom la mhm. ñu dem keroog nag ba nga xamante ni nii alaaji. Mhm. bind na démission mbax ci Facebook am. Mhm. nee na ay punkal yu nekk ci gendarmerie bi damay sapoté de. ya may sapoté. <laughs> ah ay punkal yu nekk ci gendarmerie bi. dañ koo woo ne waxal ne dañoo pirater sa compte lii du yow mu ne leen man la te balaa waa réew mi xam ne maa mën a bind dëgg ma dem ba génn gendarmerie bind rek laay def ne ñett tëdd ci suuf. ni mooma ne mooma. boobay benn. Mhm. ñaar. Mhm. mu ñëw ci déglu bi ñu doon déglu ñoom ak Adji Sarr. Mhm. ak di Amène mbay mii di jarbaatu Maodo Malick mbay waaw. nee na aji benn instant daal nee na ko daal. tonton Ba lii may def nii du ci am problème. Ah, mooy problème. loolu ko doom. yow dañ la violé kay nga ñëw kay day doon problème bi. dégg nga loolu. waaw jox ma sa carte d'identité ma jël sa tur sa sant ak nga juddu gannaaw gi ma laaj la sa turu ndey ak sa turu baay comme que nekkatu ci. Mhm. xale bi ne ñun ma génnee carte jox ko. waaw ne ko waaye carte bii nag dañ ma koo defaral waaye baaxul. parce que dañ ne carte d'identité bi ñaar fukki at laa ci am waaye man awma ñaar fukki at de carte d'identité bi baaxul. ne Adji Sarr ko wax ni ba ñu paree Adji génn dugg ci couloir bi dem dëppaat. ñëw ne ko tonton li mbaa sama patron du yëg du ma ci am problème. mooy li ma fi wax nii. mu ne ko non mais attends yow dañ la violé nga nga plainte lu lu. Mhm. yeneen ak yeneen sapo bi dafa gudd de alaaj. yow continué leen. rek. continué leen dama ko rek. déedéet continué leen. wax ji daf ci am xorom. Mhm. Ah, waaw waaw. Mhm. Hmm. ma dem. ah. Seydi Ahmed Mbaye it mu ne maa ko déglu ba ma ko dégloo it moom it la ajee wax la ma wax grand mbaa après duñ ci am problème. duñ ci. duñ ci am problème. ñun mu ne boo ñëwee ñu ne dañ la violé. Mhm. yegg sa kaw. Mhm. ñun dañu am fu ñu lay yóbbu hôpital principal. alaaj déglul de. Mhm. man en tant que capitaine ma jël sama benn élément. boole kook aji saar. ni ko yóbbu ko fu ñu daan yóbbu ñeneen ñi hôpital principal. à ma grande surprise nag. ba ñu dellu si waatee kayit yi ñu indi CTO laa ci gis. ok di demander à mon élément lu xew quoi entre diggante bi au lieu nga yóbbu xale bi principal ñun foofu lañ am habitude di yóbbu. nga mu teree ji CTO. lu ko fa yóbbu. waaw mu ne bi ñu génnee daal ñu ànd ak moom ñoo ne médecin bi moom moo koy topp di ko suivre xaw ma lan ak lan man tam ma topp leen. dégg nga ñi ñu ànd kon du woon ñoom ñaari kese. Ah, dem nañ daal. dégg nga loolu mhm, mhm. ah. prélèvement xam naa ne mbedd maa ngi ne selaw de génn ma de waaye. prélèvement yañ def ca gone ga. Mhm. ba mu yeggee ba waa kër docteur xool ko. moom daal boo bëggee dégg dëgg. boo ne dañ la violé nag. résultat. ya seet ñoom. ak résultat woo xam ne ab alaxam moo ko seet ca àll ba mantulaay boobu du am crédibilité ci ñoom de. du loolu la wax. Ah. moo tax mu ne. li ñu seet ci gone gi. moom daal. avant muy def déposition ah loolu daanaka entre guillemets valable. voilà ci ay waxam. nga wàcc ñëw ci suuf. ci da xamoon Sonko waa wala déet. foofu mhm. tontu na ca. Ndeye Khady Ndiaye tontu na ca borom salon ba. Mhm. ci même ci même question yi. waaw waaw. Mhm. tee ma koo teg wala ma sapote. continuer la. <laughs> li ngay yi dina xarale. procureur de la république ne. Mm. borom salon bi ci boppam. Mm. nañ leen ko déglu. ñu koy déglu. kooku ki mu jur juróom-ñaari weer la am prématuré. gone ga mënta génn fi mu ne. nga. commandant bi ne ko kon fekki ko. hôpital Fann. fa la ko dégloo. Fann. dellu si waat procureur ne nañ leen ko dem jëli ñëw garde à vue ko. Mhm. médecin yi ne xale bii mënta nàmp meew artificiel yi ñuy defar meewu ndeyam rek la mën a nàmp waaw xale bi mënta génn ci ngelaw li te ndeyam procureur nee na dikk commande naa ci mbaaxam waxaat ko procureur alaaji mhm. procureur ne ko mhm. yow sa xolu yërmande yi nga war a bàyyi demal ko mhm. commandant bi nag. Euh, capitaine bi. ci kaw gàttal daal dama koo gàttal nag ndax wax ji dafa xaw a kii gudd. compliqué. waaw. daal bokk na ci li mu wax ci dossier bi. ah. léegi lii kay mën naa koo dugal nag. waaw dugal waaw dugal na. ah na dugg. Chimère ana capitaine Touré. waaw mbokk yi nag euh, tey ñu ngi nii seq kon euh, waxtaan ak euh, le capitaine Oumar Touré officier wu gendarmerie nekk tamit section bu recherche bu gendarmerie bu Colobane moo capitaine maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay laaj bi nga xam ne nag dañ la koy laaj daal toog nañu ba dégg ne da nga tekk sa ndomba tànk te ñu ne. dossier wu xale bu jigéen bii di Adji Sarr ak président Ousmane Sonko yow lañ ko joxoon lan moo waral nga tekki sa ndooma tànk. effectivement Mohamed da nga may permettre d'abord mu nuyu Sénégalais yi surtout ma nuy sama maam Koumba Touré boo xam ne mu ngi village. maa ngi nuyu aussi sama pap ak sama yaay. comme je vous dis il y a huit ans je suis à la gendarmerie je suis officier de gendarmerie. voilà j'ai fait deux ans à la section de recherche. durant les deux années que plus de 1500 procès-verbaux. Malheureusement, je tiens à témoin ceux qui sont à la section de recherche. Malheureusement, c'est l'affaire, dans l'affaire la plus simple que ma crédibilité a été remise en cause, a été remise en cause. Donc, ce qui fait que, aujourd'hui, je pense que j'ai le droit d'informer les Sénégalais pour ñu yegg ko mais bii moo tax ñu may topp ñu may déglu ñu may xool samay déplacement en fait gis nga. balaa may egg si lii gis naa dem naa rencontrer sama commandant ma expliqué ko ne ko mon commandant moom xam na ma il me connaît très bien il a entièrement confiance en moi et ça je le sais et je sais qu'il nga quand je vous ma parole je la tiens je lui ai gars yi ñu ngi may topp te ni ñu may toppee xam naa ni dañuy déglu parce que dañuy anticiper samay mouvement Donc s'il continue comme ça, je vais démissionner. Moi, je n'ai pas besoin de prouver à quelqu'un que je suis crédible. C'est-à-dire, moi, c'est mon principe. Moi, la crédibilité. Donc, je ne prouve pas à quelqu'un que je suis crédible. Je le suis. Point. Maintenant, je voudrais expliquer la raison de, de cette démission. xam nga lu tax ma jël décision ak sénégalais mm-hmm. bu ma publier sama démission sama page Facebook ay autorité gendarmerie woo nañu ma li ma mun nga wax ne que yow sa page Facebook que dañ ko piraté c'est pas le haut commandant qui m'a appelé ni le c'est des autorités avec qui j'ai de très bonnes relations ñu ne ma mun nga wax ne dañoo piraté sa compte ma ne ko non ça c'est moi qui l'ai écrit xam donc c'était c'était mon honneur qui parce que bu ñu ma woowee di ma wax ne naa wax ne que dañoo piraté ma ne parce que lii man maa ko bind mais ba léegi waxuma dara mais lendemain bi mooy la lundi on m'a informé que dafa am benn docteur bu ñëw sama bureau pour constater ne que j'étais en état de démence c'est-à-dire que dama dama dof quoi pour xool waaw gis nga loolu pour man c'est remettre en cause même eh, l'intégrité de la gendarmerie am nga booy xeexal dara bul won ñi ñi Sénégal bu ñu ñu xamee foo dem doo fa egg donc foo faut créer ce qu'on appelle la diversion je suis parti à mais Là, l'objectif de cette vidéo, c'était pas pour faire croire aux Anglais, c'était pour faire croire aux Anglais j'étais à Touba, kon il allait me chercher à Touba. xam nga naan foofu lañ may wër bu ma leen waxee ne maa ngi Touba. donc c'était ça l'objectif de la vidéo. léegi ñi ma doon topp mooy waa renseignement c'est-à-dire euh, y a ce qu'on appelle les renseignements c'est-à-dire je voudrais pas trop développer c'est-à-dire dama bëggul aussi dem ba divulguer beaucoup de choses mais xamal ne c'est l'état du Sénégal. qui a engagé des personne ñoo xam ne ils travaillent ñu may topp cest à c'est pour voir am nga affaire boobu fu mu jógee c'est quand le procès verbal de Adji Sarr a fuité c'est-à-dire bu ma defee sama enquête ba pare man ak commandant Abdou xam nga commandant Abdou buy bu def enquête bi man la woo si bureau am jox ma enquête bi te bu may jox enquête bi aussi c'est le fruit du destin c'est-à-dire moom bu mu koy def defu ko ndax. Euh, man fii laa dëkk ba xoolee laa dëkk c'est parce qu'il a confiance en moi et il sait que je n'ai jamais été partial mais nag toutefois saa yu ma mën ne jàppale nit te yàlla tax dama koy jàppale cest à tout le temps quand je sais que c'est injuste je me débrouille à ce que la personne ne subisse pas l'injustice je trouve un moyen de l'aider parce que moi si ça mon principe Adji Sarr bu ma ko bu ma commandant bi boolee ak moom ne ma demal déglu ko xam nga lan la ma njëkkee wax mu ne ma tonton est-ce que lii duma créer problème kaamil baa ngi ni balaa may commencer en fait damay waat c'est-à-dire man kenn xamee wu ma caaxaan je suis un très bon musulman ma ne ko lu tax ngay posé loolu mu ne lii mu ne lii est-ce que sama patron dina ko yéeg ma ne ko kan mooy sa sa patron mu ne sama patron mu ngi hôpital fan quoi ma ne ko ma ne ko pourquoi mu ne ma bu ko yëgee dinaa am problème donc vous vous imaginez nit di porter c'est-à-dire le, le, le premier opposant d'un État africain di la laaj est-ce que patronam dina ko yëg est-ce que bu pensez que nit ku conscient dina wax loolu ensuite au cours des auditions bu ñu commencé auditionné ba pare ma ne ko euh, ma ne ko aji jox ma sa carte d'identité xam nga booy jël auditionné nit vous prenez d'abord sa pièce d'identité nga ñëw nga nga nga nga enregistré ko am ah, nga nga enregistré d'abord son nom Ensuite, vous demandez à la personne de, de, de, vous dire le nom de son père, de sa mère et tout ça. Mais dans toute son audition, lu mu wax rek day bëgg a génn di bëgg laaj ma ne ko fii nag bu ñu commencé dañuy dem ba pare. Adji Sarr génn nag Adji après quand j'ai fini avec Adji Sarr euh, il fallait maintenant entendre un de ses amis euh, Sidi que j'ai entendu Sidi bu ma ko dégluwee ba pare ils sont sortis. y a le capitaine Diouf qui est venu me rejoindre au bureau. mu ñëw mu dugg si bureau bi ma expliqué ko ce qui s'est passé après mu ñëw si audition mbay bi. si di mbay mu si. léegi avec les questions qu'on a bu ñu paree mbay aussi il a eu parce que le capitaine a posé de questions rigoureuses mu génn. et que capitaine Diouf génn bàyyi ñu foofu parce que dañ ko woowoon sur une autre affaire léegi mbay aussi quand il a fini il a signé le il revient vers moi il me dit est-ce que dama si am problème. yàlla moo damay moo est-ce que duñu si ma ne ko bu fekkee ne li ngeen di wax am na mais y a pas de souci ma ne ko ici les gens sont léegi quand j'ai fini avec cette fille je parti j'ai appelé euh, la patronne mooy la fille la femme qui s'appelle Ndeye Khady ne ko madame où est ma ne ma je suis à l'hôpital de de de, de ma ne ko mënoo ñëw ñu entendre la mu ne ma non non euh, mënuma fa ñëw sama doom et là j'ai accouché d'un enfant prématuré de 7 mois. Donc je suis hospitalisé et l'enfant a besoin de ma chaleur. Donc faut me Aussitôt après, genre, yo, je ne, je ne, je ne tergiverse pas. Quand une personne me dit ça, que mon aimant des fois en ben, ben situation, très déplacé. J'ai demandé la permission au commandant, mais d'un fait qu'il faut, m'a entendu effectivement que j'avais ça. Mais Ndeye Hadendjaï aussi explique, nous parlons, nous développons. Maintenant, on devait convoquer Euh, quand on a fini les auditions et tout ils m'ont expliqué de façon les PV d'audition jarul ma koy wax sénégalais yi yëpp gis nañu ko quand j'ai fini donc là il fallait convoquer l'honorable député Ousmane Sonko pour mu ñëw après avoir entendu tous les témoins fait tous les actes je voulais aussi revenir sur un fait gis nga des prélèvements qui ont parce que Adji Sarr bu ñu ko entendre ba pare c'est-à-dire il fallait l'amener à l'infirmerie pour ñu examiner ko xam nga nit bu waxee ne dañ ko violer dañ koy yóbbu souvent le médecin regarde et j'ai demandé a un gradé de l'unité mu jël ko yóbbu ko yóbbu ko à l'hôpital principal pour ñu xool ko mais il s'est trouvé que au lieu de l'hôpital principal ils sont partis à l'hôpital général de Grand Yoff en général on va là que la fille dans son audition lenn loo xam ne nee na boo ko bindee que moom guddi gi dañu ko jël yóbbu ça les gens ont lu mais dafa dem ñu yóbbu ko foofu on l'a mis sur une table ñu xëccal ko ay affaire après def ko si affaire dëj donc je me suis dit ce qui s'est passé c'est que c'est le prélèvement de la nuit donc ce prélèvement là il ne pas il n'est pas crédible parce que quand on prélève avant la réquisition donc la preuve là n'est pas recevable dañuy def d'abord parce que après xamoon loolu fu mu jógee donc ça c'est une tout cas à la connaissant le commandant Abdou et toutes les personnes qui travaillent là-bas, personne n'est jamais venu à la SR, en tout cas à ma, pas à ma connaissance. mais vous aussi, vous vous imaginez, quelqu'un vient vers vous, portez plainte. Vous avez une SR. On part, on règle le problème, on revient. Quand quelqu'un vous dit que j'ai été violé, après violé, c'est violer la personne humaine. Quand on vous dit que je suis violé, Ça, c'est important. Toutes les fois où quelqu'un s'est présenté à la SRN, le commandant a pris toutes les dispositions pour que la personne soit prise en compte, tel qu'il le faut. Mais principal est Principal Mais pourquoi C'est pas un agressé, on, dit gradé. gradé, Comme... pourquoi Là, je ne sais pas pourquoi, mais sûrement. Hmm. Comme cette fille-là, elle était innocente. xam naa il a fallu faire croire que kooku moo ko kooku moo xam li mu dal li ko daal ba pare c'est que toujours sa ça c'est toujours dans les manipulations que kenn kenn moo ko war a wax ne médecin bale xam na lu xew nañ ko yóbbu foofu moom mun na def sinon nous normalement on l'amène à l'hôpital principal. Sumer ma daani première partie bi leen naa buñ demee ci talibi bi ba dikk hmm. ak ah gars yi dañoo kooku capitaine Diatta ah waaw kay waay ba sax ça va nii jege nga Colobane. foofu laa nekk ma ni. waaw. sa ndékkikaay bi fan la nekk. ah mère Maguette. mère Maguette. yàlla. yàlla foofu laa bu di biñ ma dóoree lacrymogène ba ma màndi ba ma demee fa laa dem ñu jox ma. carte stagiaire Ecobank. jox la dute. Ecobank jox ma dute jox ma meew. tegal ma waa day wàcc tension la teebu ginaar. Aïssatou Aïssatou Gaye ñëwal jël sa pièce yi carte bancaire ak carte stagiaire léegi ma ne. ceebu lan ginaar bi ceebu ginaar la ma tegal. bokk na ci samay plat de. ko sax biir ay xaw ma xaw ma kan moom woo ko fa taw. ñoo xaw ma fan lañ jàpp. ceebu ginaar bi dafa amoon kii ay ay ay suweer soos yi kii ak. yooyu firi kii ci kaw. yow naan nga suweer waaw yooyu yëpp am na ci. crédité yi ci kaw noonu. waaw waaw yooyu yëpp. ah dënn lañ la tegal wala pooj. ñoom gruyère ak camembert. dënn ak pooj yépp am na sama benn xarit ah, kii ah, Mahi Bapen mooy ànd ak Omar Seck. Mm. ah. nee na mu ne ma amee daal sam papa ma ne ko waaw mu ne ma dañoo am gan gan gi naan nii ginaar gi gan gi naan nii sam papa nga ko jéppi jéppi yoo xam ni <laughs> ma ne ko diir waay ne mu jékki-jékki rek jóg ah, sam papa ne boo ci ferewul dara. wóor na ma ni moo ne tàllil roos la yóbbu. gan gi gars yi di apprécier naan kii sëñ bi pët. di géex ginaar yi di géex ginaar yi ginaar yi neex na lool. maa ngi ba nee na papaam ne ko surtout boo ci ferewul dara. waaw dëgg yàlla bon rek. dégg nga neex de. alaaji ganaar goo ferewul dara dara dara dara dara. muy gën a neex sa dërëm dem ci muy gën a neex. ñu roof ko ba ba ba ba ba ba ba ca baat ba. waaw. pooj booy xool muy dox. laa fi yow xinoo ba. waaja nee na man ginaar fooruma ci de. man ginaar <laughs> ah waaja. waaw Serif ba dafa ne man ginaar fooruma ci de Serif ma ne ko ah uute nga ak man de ay dara karaaraa mu ma ah man daal boo ma joxee ñaari tànk yi ak dënd bi euh, boo ma joxee ñaari pooj yi ak dënd bi ak laaf yi. loolu man de loolu rek presque. man daal am naar la de. <laughs> naar la alaaji mu ma Serif man na gis nga am na li nga may gis nii ma ne ko ah, mu ne man ginaar fooruma ci de ma ko ah. ay dara karara yow. loos ba dégg des te loos naa la bañ nga lu neex di. waaw lu ah, baax. man de man de ginaar moom vraiment fooruma ci quoi ñaari pooj yi ak dënn bi ak ñaari laaf yi yooyu daal bu ma ko lekkee ci ginaar gi moom ma ko tegalee pare naa ca ma ko ah. léegi moo ci des. mais dara ah? dara ci desul. li ginaar gi dara ah, moo ma jaax xëj na xëj na loosoo wala bopp ba. <laughs> loos waa loos léegi-léegi nga daje ci loos yoo xam ne nag day ñor boo koy sàq mi alaaji yeex yi du la gaañ. ba pare dafa mel ni caftu muusal. waaw mais léegi nga daje ceeg ay loos yoo xam ni ganaaru dëkk bi. mais loosu bi tax a gën a baax nag. ndéggal moom yar gi dina ko. loos temps la de. waaw <laughs> gis nga ngay wax nii sax tax na sama xel yi ba jëm jëmati Touba nii ngay def ma génnati rek uute uutali bërëb. non mais yàlla pitax. wallaahi pitax a picc. de daanaka semaine ngi nii guddi gu ne moom laay reere lakk sa picc xew est-ce que xam nga ne suñu diggante daanaka tey lay yàqu. <laughs> waa si si si day yàqu. non non non si si. non non non si si. ah kay si si day yàqu tey. sama diggante ak Mansour Diop day yàqu tey laaj leen ma lu ko yàq. ganaar. déedéet euh, yëngu ko sax mu yàq yëngu ko sax. si si si. si parce que li ngay def tegoo ko fenn. xam nga madame Diop xaritu Baye Cheikh. non non du question xaritu Baye. moo dem Aba euh, Baye Cheikh jox kii bi man maa ko def sax man mii ngay wax nii ma lay tontu. Aba. Euh, oui. non non non. day day day xaw a bi xaw ko écarté wax ko. Mhm. waaw dënd dañ kii da ko waaw day na waaw day nooy day de day moom day démb moom alaaj day glacé euh, muy tësi muy commentaire bi muy même ginaar yi nii sax ni ñu koy expliqué nii alaaj daf ma naqari. ah waaw kon waaw kon na nooy pitax yemal ci pooj bi mu jeex boo bëggee yegg ci loos yi di ma kookali day mujj dëgër mhm. waaw léegi daal na nooy bàyyi démba ndiir na nooy waaw ba mel ni xaar waaw simeer li ma génnelul bàyyi démba boobu xaw ma mbay jëfee mooma naqar mais garaawul na nooy wuy ma aba même yow aussi na nooy ba mel ni xaar rek te démb bi ma fi waxee affaire corona bi na nooy alaaj daa nooy de démb ay deux cent nga jóge ñëw quatre-vingt. waaw na professeur Mamadou Ndiaye na fexe ba tey na gën a nooy. na gën a nooy. baax na ah, léegi. wax ma fi nga nekk nii mais euh, en nooy maa daal na nooy rek. voilà kon ma nooyal ko. ah ca bisimilah ah, na nooy na nooy na voilà merci beaucoup nanooy rek ñu bàyyi ko sànq rek échangeur bu aan bàyyi fa quelques complications taxuloon mu ah, mu amoon benn choc ci diggante boobule échangeur bu aan jëm Colobane taxoon mu amoon quelques ralentissement ci trajet boobule mais boo ko dépassé mën nga progressé dugg Colobane bi jafewul rond point Colobane moom quelques ralentissement pour tey ko du côté des HLM croisé ñu bàyyi ko maison du parti socialiste ak ñu bàyyi ko booru caserne Samba Diéry des ralentissements sont à noter pour véhicule yi bàyyi ko Massalikul Jinaan sur la route des HLM dañuy croiser ñeneen ñu bàyyi ko borom lycée bi rek tax na waa boobu ah, def rek daal di progressé utali place de la nation su ko defee nga doog a progressé ci centenaire utali fële nga xam mooy rond point bu RTS élage waaw kay waay jaajëf aca simer machine na nooy waaw doomu bàjjen voilà grand adjuma bo depuis Italie maa ngi koy nuyu sama frère maa ngi lay siyaar bu wër bu baax Birahim Seck forum civil maa ngi siyaar di nuyoo mhm. Ozil léegi alaaj mhm. léegi nañu nañ nañ continuer mais lépp na nooy rek ñu continuer nooyal ko voilà na nooy rek su meer ah. ñëwal quand toutes les auditions il nous fallait il fallait euh, amener une convocation pour l'honorable député Ousmane Sonko j'ai pris la convocation j'ai pris mon véhicule je l'ai écrit d'abord en SMS ne ko bonjour honorable député Ousmane Kourou je suis le capitaine Touré officier adjoint à la section de recherche on a reçu une plainte contre vous et on m'a chargé de vous joindre pour les besoins d'une convocation il me répond pour me dire que j'habite à la cité Gorgui je me rappelle pas cité Kor Gorgui waaw mu jox ma adresse bi le lendemain je l'avais dit que je viendrais à 10 heures à 10 heures suis pas venu il m'a réécrit un message pour me dire monsieur à quelle J'ai pris mon véhicule, je suis parti à la cité Converbi, je lui remi la convocation qu'il a déchargée et je suis revenu à la section de recherche. Quand je suis revenu, c'était un samedi, le commandant m'a dit que le procureur a demandé à ce que ñu arrêté ndaw si ñu arrêté ma ne ko ah commandant la femme là elle a un enfant prématuré de sept mois kooku mënul dem de mu ne ma ah j'ai informer le procureur mais bu ma ko informé xam nga lan la ma wax def ma ne commandant yow sa xolu yurmande bi moo la sonnal bi bu fekkee ne damay fen yal na ma yàlla toroxal xam procureur bi ne ko commandant yow sa xolu yurmande bi bu mu taxaw il faut plutôt faire appliquer tes principes de gendarme waaw comme prévu le commandant m'a di exécute les ordres je suis très loyal à moom mi xam na ko je parti j'ai exécuté je suis j'ai dit à la dame je l'ai même pas informé ah dama ko ne kaay bu mu ñëwee sama bureau je l'ai pas dit commandant bi nee na jàpp la dama ko ne vous allez être placé garde à vue donc comme on a remis une convocation au député Ousmane Sonko il devait venir et pour pour accéder à lui c'est-à-dire c'est pour vous expliquer en je ne parle pas de complot je n'ai rien dit on est on a demandé d'arrêter la dame et quand on a demandé quand on a expliqué au procureur ce qui s'est passé il a dit au commandant ce que je mais avant la notification de la garde à vue fekkoon na ni ndaw si je l'avais écouté quatre fois mais à titre de témoin parce que je n'ai jamais imaginé que mais toutefois je l'avais notifié tous ses droits concernant cette affaire boobu laa ko wax ni madame moi j'applique des ordres de mes chefs mais je vais vous appeler un avocat te avocat bu ma lay woowoon c'est pas un avocat boo xam ne mbirum xaalis lay toppee bu fekkee ne c'est le gars que j'ai connu à la fac qui se battait pour des principes humains humains xam na ne kii il va faire son possible pour que la vérité se manifeste pour mu jàppale la vous avez compris c'est ainsi que j'ai appelé maître Bassirou Baldé qui est sorti une fois en parlant j'ai appelé le maître il est venu dans mon bureau je l'ai expliqué sans pour autant aller dans les détails de l'enquête il fait son travail je fais mon travail la notification de la garde à La dame a demandé, après l'audition et tout, la dame a demandé à aller à l'hôpital. pour nampal doomam bi xam nga doomam bi c'est un prématuré c'est un prématuré donc euh, nee na le docteur lui a dit que l'enfant ne pouvait pas euh, vivre d'un lait donc il fallait le lait maternel sinon day day am problème vous avez compris donc je lui ai dit allons-y maintenant dès qu'on est arrivé J'ai dit à l'avocat que cette dame, si elle se sépare de son enfant, l'enfant va décéder. Il faut qu'elle attache l'enfant avec elle. Pour moi, c'est saa la justice. Quoi. Finalement, l'avocat <laughs> est parti le lendemain pour dénoncer. Et la presse a mis la pression sur l'État. Les gens ont lâché. Parce que vraiment, aussi l'erreur. Comment je n'ai aucune motivation politique. Qu'est-ce que Mohamed, moi, même université, je suis en liste. mosuma dem voté man bu may inscrire liste électorale c'était juste pour avoir une carte parce que avec la carte d'identité CEDEAO il fallait il paraît que mënoon nga inscrire en même temps. c'est-à-dire wax ni bu leen manifester bàyyi leen ba vendredi dinaa ñëw manifester leen. vous savez quand vous cherchez man je suis militaire comme je vous dama am stratégie gis nga état. quand vous voulez un résultat, il faut demander plus grand. Même quand vous voulez demander du carburant à l'État, vous voulez 5 000 litres, demandez litres, vous aurez vos 5 litres. Donc quand tu demandes la démission, avec ce que je sais, ils, savaient que, ils avaient peur que la jeunesse me suive. Ma dara nous suivre. Donc ça a joué. Je pas dit que je la cause. mais je sais que ça a joué. léegi moo ko mel mu delluwaat ginnaaw tuuti balaa ngay wàcc ci. waaw Adji Sarr la. Hmm. sama patron mbaa du ko yëg. waaw ah. Sidi hmm. ma ci am waaw léegi seen ginnaaw audition ba ci yow naan ci am problème. waaw. maanaam kon daal dafa nekk nit fait en tout cas moi c' la première fois que ñu violé nit mu ñëw sama bureau porté plainte et après muy dellu di ma naan est ce que am problème. comme ni ma la waxee. enquêteur non li ma tax a jóg. Hmm. c' pour dire xam nga. Sénégal fu ñu toll actuellement a cause de cette affaire il y a de personnes qui sont mortes il y a de problèmes gis nga pour pourquoi j'ai demandé à ce que les personnes responsables démissionnent lii moo tax. pour yow complot la quoi. mënuma wax complot comme ni ma la wax encore une fois moi j'explique ce qui s'est passé gis nga bu ma demee ba demee sama démission donc j'ai besoin d'expliquer que nit ñi yegg ko après je ma me rendre à mes autorités militaires ils vont la procédure me concerne. Eh, ce que j'ai dit je ne regrette pas et je l'assume je n'ai aucun problème. pour yow après dañ lay jàpp. je oh. gis nga yaakaar naa ne man bu ñu may jàpp sa à dire pas peur que ñu jàpp ma gis nga formation bu ma def moo gën a métti ay jàpp tous les responsables dans cette affaire. une enquête doit être ouverte ñooñu ñëpp ñu jàpp leen le procureur mooy li ma la wax comment on peut nit wax la ne xale bi sept mois la am nga ne ko non yow sa xol yurmande bu un procureur de la république xam nga on est la république pas un procureur du président bu fekkee procureur la république vraiment yaakaar naa ne bu ñu la waxee loolu war nga nangu mais nga wax loolu ba nit ñi dem hôpital on a créé un scandale là-bas hôpital je tiens à tout ce qui était à l'hôpital ba minuit foo xam ne des enfants sont en réanimation là-bas ñu nekk fa di indi fa ay coow c'était vraiment triste. ñeneen ñoo war a démissionner pour yow. xam nga nag loolu damay bàyyi Sénégalais yi juge te man wax naa li may wax cest à yi bu ñu fekkee ne que man li ma wax nii ça vaut la peine que le procureur de la république démissionne ou que le ministre de la justice démissionne yaakaar naa jar na vous savez le ministre de l'intérieur moi je considère que c'est un collègue du ministre de la justice normalement war na xam lu yi xew. Euh, pression bi wala ñu lay topp rek moo tax nga. non démissionné wala. du loolu rek c'est parce que comme je vous mes principes ont été bafoués vous quand je suis un officier officier de gendarmerie ñu may topp di guetter si oui ou non je suis en contact avec une personne. PV bi dindi. dañ ko dindi. wuñu ko dañ ko ne deful parce que le procureur nous une telle pression kon ne pouvait pas terminer. ça am na lu des y a des j'ai le carnet de déclaration am na affaire yoo xam ne on l'a pas mis dans le PV ça je le dis c'est pour l'honneur la gendarmerie en Qu'est-ce la gendarmerie, dans cette affaire, est restée debout jusqu'à la fin. Vous savez, si la gendarmerie avait, avait, avait fléchi, le pays allait dépasser ça. Donc nous, on a été vraiment... C'est-à-dire, aujourd'hui, je me considère comme démissionnaire. Mais il faut accepter

que j'ai eu un contact avec Sonko wala avec une personne autre que peut-être il y certains avocats moi je suis officier de gendarmerie je suis un enquêteur am na par exemple maître Tall vous vous rappelez l'affaire de la drogue là les 675 kilos c'est maître Tall qui était l'avocat du blanc donc lui c'est normal qu'on entre en contact parce que c'est moi qui prenais l'audition du blanc kooku boo gisee numéro am sama téléphone c'est parce qu'on parle bu fekkee je demande je le tous les sénégalais waxuma seulement la gendarmerie ou la police tous les sénégalais ku am preuve que dama entrer en contact ak Ousmane Sonko wala un de ses avocats na ko produire. yow wax loolu de manière très claire. mais euh, comme je te dis encore une fois. damay bàyyi sénégalais yi ñu ay conclusions c'est-à-dire waruñu làkk suñu réew. si dans ces genres de détails. non maanaam waaw porte plainte na laa la wax gis nga comme je l'ai dit au départ moi j'ai établi plus de 1500 procès-verbaux c'est l'affaire la plus simple de toutes les affaires que j'ai faites cest moo tax ma ne la boo bëggee xam man maay kan il faut aller écouter les gens avec lesquels je travaille ñooñu mën nañ la expliquer kan mooy capitaine Touré moi je ne suis pas violent. c'est moo tax comme ni ma sama vidéo boobu mu fuite tout ce qui ma ko ne ma ah mais mon capitaine yow yaa nekk si vidéo bi <laughs> ah, man nga booy boo bëggee dem fenn euh, bu nit ñi xamee fi ngay dem. doo fa yegg moo tax yow bu léegi ah. waaw boo dem après SR c'est-à-dire moi je pense c'est ça qui comme nit ñi dañ may topp di xool ne est-ce que xam naa dara xamuma dara je me dis que bu nit ñi xamee ne man dinaa wax dara mun nañ ma rey donc léegi ma wax. benn yoon di ma xam gis nga nit ñi di am na ku comme ku ma je regardais je je je un commentaire je vérifiais les commentaires ma gis ku bind ne capitaine bi il a peur il est à Touba. vous savez quand vous êtes porteur d'un message rien ne vaut dalee affronter la mort le général de Gaulle quand il appelait les Français à résister il était à Londres il n'est pas venu se battre pourtant il est arrivé à convaincre les Français donc bu fekkee ne yaakaar nga ne yow li ngay wax mun na changer dara jël ngay dem xeex toogal dégg nga wax ko bu fekkee changer na baax na bu fekkee ñi ñi gëmuñu la nga dem toog man ñu sama maam te di ko remercier di ko gërëm lu bëri c'est-à-dire elle m'a éduqué des principes yoo xam ne mosul bëgg ma wàcc la vérité c'est-à-dire li may def ni si erkia ki ma laa inculqué donc ce qui fekk maa ngi koy massaw bu baax ba je sais que actuellement il paraît qu'elle a même organisé ay jàng kaamil foofu pour que je puisse vraiment yàlla jàppale ma mais je voudrais que quelqu'un comprenne que si li ma yare si loolu laa nekkee donc je ne suis que mon destin cest à gis nga PV e affaire bi c'est c'était c'était mon mon destin c'est-à-dire on trois capitaines à la SR commandant bi woo ma ne ma demal def ko donc bu fekkee dëgg dafa war a feeñ da ngay wax expliquer lu xew bu ma re bu ma reconvoqué demee wala nit interview moom feneen j'essaierai de dire la même chose je suis vraiment très honoré d'avoir servi pour ce pays. merci merci je vous